ba tey dégg ngeen équipe bi euh, ñu ngi toog ki nga xamante ne mooy capitaine bi Serigne Ndiaye numéro 2 plus de cent kilo moom moom la dakaar yóbbu woon moom it dinañ waxtaan ak moom ci sélection bi ndax yaakaar naa ne sélection bi weesu fële ca Kaolack bokkul woon ci sélection bi nan la def ba dakaar wóolu ko yóbbu ko jox ko li nga xamante ne mooy capitaine équipe bi mbër maa ngi lay baax di la siyaar. amaa lay fay bu baax nga am sant yàlla jërëjëf sant bi. réer na sant suñu waajur. xam nga di nuyu waa naag ma juddoo yore maa ngi fi di nuyu hmm. suma dëkk yi. Hmm. waa Ndiaw Serigne dafa escale dafa bëri. waa Ndiaw Sow ak Sonkin village ko wër yëpp. Tufa hmm. Gueye xam nga moom père nga di nuyu xam nga sama yëpp. ku si mel ni Père Jo am nga Père Maxi Bodi am nga Kanté Bodian Père Allé depuis France di nuyu Fabrice Aloche bu baax a baax di ko ñaan mu tere hmm. <coughs> nga def ba équipe bi équipe bi gars yi sélectionné la nga war a dem équipe nationale rawatina ñu jol capitaine bi jébbal ko. ah mais équipe bi équipe la maanaam boo déggee équipe bi équipe la. Hmm. tey per Tafa ngay nekk. Hmm. ñooy déet per Kati nekk fa. même bu jëlee wàññi kilo ba trente kilo quarante kilo damay sacrifier pour def ko. Mhm. waaw pour rek sumay kilifa am ndam. waaw dëgg yàlla ñi ma ànd tamit ci liggéey bi nekk ay jàmbaar nekk ay gaynde mhm. xam nga su mel ni Mody Pouy mhm. xam nga Tony Junior xam nga euh, Mbaye Diop Kaling bu dëgg yàlla na rek yàlla dogal a maa leen ëpp ñaan parce que man awàññu ma poids damay dóor ginaar guddi ba miir noonu nekk ci salade gi teew lu ñu Mm. mu fekk si sama bool. Mm. am nga mu ak courage. mu mm. nekk si salade gi. moo tax tey salade gi fay na daal. maman bi <laughs> yàlla yàlla wërsëgale say ginaar yow yàlla wërsëgale salade. waaw oh. yom seen salade nga yom sa ginaar ay koom-koom. waaw. petit de tomate. loolu loolu naa tey moo indi drapeau chef de l'état bi looloo ko indi fii mais bi. lan moo la ci gën a marqué parce que yaakaar naa ne nga nekk ak say rak ñu bari di roy ci yow. aussi nga nekk capitaine bi ñu bari di la bàyyi xel. lan nga ma ci mën a wax ci groupe bi. waaw loolu loolu loolu loolu loolu nga ne la équipe bi yaakaar naa ñaar mag. Hmm. muy Touré laa mag Mbaye moom la. maa hmm. maa ko jox ñoom Massé. waaw équipe bi tey promotion doyen. waaw waaw pour mooy grand frère non sérieux sans blague. waaw mooy grand frère. mais tey su mais. yaa mag mais bu yàlla dafay bu yàlla dafay ñu ah. dafa ci grand frère. Ah. damay dem dugg ci àll bu voyagé. Ah. teg ay coono. xam nga jox leen. ñu jël am courage sangu te kii dañoo xel ñaar damay teg paan yëpp sangu. xam nga mu gëm leen ne leen carrément que si que saa yi ñun ñu bokk benn objectif. Hmm. objectif bu ñu am mooy maanaam ñu am ndam ñëpp. Hmm. waaw soit dañu mën nekk bokk ndey bokk bàyyi. Hmm. sinon ku nekk nekk këram su commission jot ñu dem te bu waa du ñu jëlee dara. ñun ñu nangamul loolu tamit nag. parce que confiance dafa neex. dara gënul neex mbër ak mentalam. tey ñëpp kenn bokk si ndey kenn bokk si bàyyi. pour mu yaakaar naa nga bokk écurie Fass. ay at nekk écurie Fass. tey dañu mën a regroupement tey mosuñu ko mel. te dama te regroupement dañuy solonte yére. tooni booy waxi noppi booy jóg Babacar waxi noppi. Hmm. te loolu moom gën a marqué moom gën a neex maanaam confiance bu ñu am ci man. Hmm. ak bu ñu yore. Hmm. tey ku si nekk tey boo jógee si balance mu des 3 kilos da ngay ne suba da nga wàññi 1 kilo 500 yi te effectivement da ngay dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ba muy tëdd guddi bi la wala moo pee taxaw ak nga père donc vraiment naa booy quoi. parce que daj man jar naa si wàññi poids. weer koor rek nu méttee nga war a dog war a reer gis ay ginaar gis lu ne gis ponkal mu ñuul toog nii di ko dóor yow nga toog yëpp say salade say concombre. Hmm. lewet lool. Hmm. loolu jàmbaar a mën ko wax. Ah. léegi équipe bi tey fi mu toll nii dem ngeen euh, fële ci Diourbel mais bi ngeen demee Diourbel dafa tàng. y avait 44 degré xaw ma 45 degré la ñu wax. ngeen war a bëri diggante suba gi bu ngeen yeewoo. ba heure bi ngeen di dem euh, ci compétition lan ngeen di def. amuñu micro la leen jubal. micro bi. leen rek mën a adapté wu. ci tàngaay bi ak terrain bi. ak yooyu quoi. moo tax ma yàlla na gars yi maanaam ay gaynde lañ. wax dëgg yàlla ay gaynde lañ ku si nekk tey da ngay jug noonu tey noo gaynde lay nekk quoi amul dellu ginnaaw. Hmm. wallahi la si kenn wanu ma si kanamu sonn kenn wanu ma si kanamu ragal. Hmm. kenn wanu kanamu tey. non te je suis désolé du baax te pourtant même ba même même ba fay compétition bi sax majeure partie yëpp Fatick lañ joxoon favori. am ah, na Fatick mooy favori. parce que boo xoolee équipe bu Fatick bi. macha allah xam moo jox Fatick favori tey. Hmm. tey ñoom ñu am benn esprit boo xam ne duñu am esprit gagneur. Hmm. mais imagine nga war a compétir war a teel a tëdd. mais wallaahi la si ba trois heures du matin booy nelawuñu Fatick ngeen am mënoo leen nelaw. non du gis non du gis du gis nelaw sax maanaam leen nelaw. non Fatick ngeen am. waaw non non quelque soit alpha rek. maanaam maanaam le fait ñoom ñu am am gëm-gëm am yàqin ne te su moom day defar lépp. ak hmm. courage boobu. moom loolu neex. yàlla xam na loolu. Hmm. te xam naa seen xol xam nga mu nga am benn équipe sax wala am benn mbër sax mu jàll doon nalaw ku xool sax xam ne da ngaa tiit wala yow mi nga nekkoo parce que ñun ay mbër lañ naan kër da ngay xool mbër xam ne kii day ñemewu la kii tey pare bu bëri ak yow mais ñii ma àndal nii moom barke Sëriñ Tuubaa yàlla yàlla lafal cat. Hmm. waaw te ànd bi tamit dëgg yàlla làmb moo ñu boole. Hmm. xam mais yàlla bu ñu làmb tàqalee. machine na waxoon. ndeysaan mu nekk ñoo xamante ne say xarit lañ say rakk lañ say lépp la mais bi ngeen ñëwee ba ci ba ci jour bi. Hmm. ngeen dugg war a bëree Fatick. yaakaar naa 66 kilos bi moo njëkk a bëre. Babou Kaly euh, bi mu bëree. mu am ndam recours am. moment boobu yow lan nga xalaat. non man man man dama yaakaar ne premier chute bi sax moom daan naa wàññi si premier chute bi. Hmm. après man man j'étais trop confiant man. yàlla xam na la wallaahi. boobu gëm nga ni bu recours amatoon ñu woowaat leen sax. dina ko daanaat parce que boo bee naagu doon naag boo xamante ne boobu gis qualité bëri kii. te man ki gis naa ko mu bëri taxaw naa gis ko mu bëri moom mooy yóbbu ñu bëri. Hmm, hmm. te macha allah wóolu dafa dafa feebar sax parce que wàññi poids. Mhm. boo seetlee premier jour bi ak deuxième jour lu joxe bokkul parce que wàññi poids bokkul ak wàññiwul poids. premier mhm. jour bi da ngay xaw nekk à cinquante cinquante cinq pour cent parce que yaa ngi toog ay ñaata jours mais deuxième jour bi da nga joxe à quatre noonu da ngay parce que yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi commencé bokk si benn bi quoi calmement mais tamit sama baabu kalañ tamit. kalañ hmm, kalañ wane na boppam ngeen ñëwaat ci beneen euh, kii bi soixante soixante. soixante seize kilo bi mbay Diop. Mbaye Diop tamit war a bëri mais ki muy moom it booy Fatick bi ndaanaan la. non kooku ndaanaan la mais kooku dama yaakaar dafa ëpp poids bi. waaw kooku poids bi kooku. poids bi. kooku am jaaxal man jaaxal na ma trop. parce que boo xoolee ñaar bañ ñaar. waaw eh, kii cent kilo la. <laughs> waaw ah, bu loolu la bëre cent kilos. non bëri boobu dafa nekk ndax pare xam nga ñaaw xeetu ñaaw boo xamante ne bii macha allah. <laughs> dégg nga sànni xeer vraiment. <laughs> léegi léegi mais kooku poids bi mu yoroon. Mhm. actuellement ban bi mu ñëwee ñu taxaw ñoom ñaar te macha allah moom it dafa mën a bëre. Mhm. ndax yow xam nga mbër mu mën a bëre. Mhm. gis nga ay qualité am. moment boobu jàppoon nga ni Mbaye Diop mën na ko sonal. non si bu baax a baax a baax a baax a baax dégg nga man sama booy wàññi poids sax mu ne ko faible loo mais booy li ñuy bëri fekkoon lu wàññi poids du dara ku nekk indi poids normal dëgg-dëgg. Hmm. donc kon dina demee neen mais tamit nag équipe Fatick macha allah. Hmm. waaw di leen féliciter. Hmm. baax di leen féliciter encore une fois. parce que dama final ak yombul. bu yàlla defee dama final bëri si fair play. ñu gën a noonu dañu leen remercier bu baax dina encouragé tamit xam ne lii ak ñu ànd. ku ne am na fi ay takkusaan tegal nañ ko ay ay at yoo xam ne nii loo teg Fatick ay jël. Mm-hmm. mais bu demee tamit dañuy xam ne léegi laa ma ñoo ànd daal. Mm-hmm. léegi ngeen dem noonu am 2-0 ci kaw Fatick lu ñu bari yaakaarul loon ci làmb ji. Mm-hmm. ngeen am ko 2-0 troisième combat bi dos ci diggante Tony te Tony moom ñëpp xam nañ ne drapeau chef de bi dafa passé côté. bu daanuwee. da ngeen di continuer waat ci compétition bi. bu daanee ngeen jël euh, drapeau chef de l'État moment bi Tony di dem. yow jàppoon nga ni Tony mën na daan bandi 40 ans. non parce que xam nga tax tey Tony même même bu ñu bokkoon équipe bokk ci woon dara ma ragaluma ko ak kenn. Hmm. waaw parce que xam nit ki nit ki xam ñu ay sportif lañ. Hmm. ku si ne xam si moom lu mu mëne ba ci booy léger yi dafa gis yu bëri yoo xam ne yo dañ leen ne booy bi kat ñoom fi mu nekk nii noonu du place da nga ne jàmbaar la moo tax li lépp lay def yoo def fulla ak fayda parce que suba moo tax kaa yu mel nii amee moo tax. tool yi malgré doxul ci vendredi bi doxul samedi bi mais gisoo kenn ku ne dafa ñàkk jom. Mhm. wala kii kat kii laa. Mhm. li rek mooy ah tool yi kat. ñëwul si làmb ji. Mhm. tool yi ñëwul tool yi ñëwul ndax ñu xam ne ne guerrier la jàmbaar la macha allah. o dëgg yàlla. samedi si guddi ñu toog mu jooy guddi yëpp nag. dégg naa yaa njëkkee jooy bi de. waaw man man man jooy ponkal kay dégg naa yaa ko njëkkee de. mooy hmm. loolu ma gis ma gis nii lu am lu ko metti. Hmm. parce que xam mu toll yàlla damay hmm. mu ne li ngay def. ñu lay daan yàlla xam na ne boo leen fii le quarante combat wallaahi du ñu am benn. ñu tëjee da nga daan ay jël yoo xam ne a comprendre. man samedi sama sama tuuraan dafa doon yàq samedi. sama booy mu tuur mu tuma sama gars yi ñoo ma téye dama noonu bul yàq làmb ji parce que xam naa la bu jëkk ci xolam. sam na si ma sëriñ Jaam ne ma suba damay nekk gaynde ma wax nekk muus ma wax noonu gaynde ngay nekk fils. ma wax nag ma wax ma noppal. wax yow amul suba gaa yi tax ñu jël ndam li mu wàcc sëriñam boobu nekk fee kër mbir. waaw parce que yow boobu gëmoon nga ni ñaari victoire yi moom di ko am. ci diggante Babou Kaline ak Mbaye Diop. donc dama ko man quelque soit alpha rek yàlla may ndam. man moo hmm. amoon yaqin bu baax a baax nu mu xew rek yàlla dinañ may ndam. su hmm. man peese naa coono booy yi xool naa booy seen mental mu toll ak seen gëm ko ak seen maanaam seen détermination. Hmm. ah non lii moom du ñu seetaan quoi yàlla dinañ si tural. ngeen nekk champion chef de l'état moment boobu bi ngay daw ci tool di jéggi digg géew bi tey war ngaa bëri ban yëg-yëg nga am. loolu tey moom. mënatoo a mënatoo ko loolu moom war na yàlla mënut moom non parce que dafa seere dama xam nga xam nit ki xam nit ki njàmbaar bu nekk ci moom. Hmm. te ñëpp moom daf ñu defoon problème mais moo tax mu fort mentalement. dañu hmm. non fils day baax dafa fils am problème depuis vendredi bu mu bëree benn combat la xam ne fils kaay mu ne fils nekkoo ci làmb jee. Hmm. faalu mu ñibbi bu ne effectivement si nekkoo ci làmb ji gars yëpp di ko encouragé te mu fort mentalement. Hmm. maanaam te yàlla ñëw na coono. Hmm. say 2-0 nga indaale drapeau chef de l'état bi. ndax 2-0. gis naa nga bëre Ablaye Ndiaye ñaari yoon daan ko. Ablaye Ndiaye lan nga ma mën wax moom. non Ablaye Ndiaye di ko nuyu bu baax maanaam sportif la grand bu baax la macha allah te jàmbaar la gaynde la. Hmm. maa bi dama wax loolu am na guddi yu mu tolloon. Hmm. am position mu tolloon ci làmb nekk ci ay guddi tolof tolof moom courage am njàmbaaru ñëwaat ba rusu na waat di bëre loolu jàmbaar ko mën. Hmm. fi mu toll nii am fi ñoom la kon ba léegi damañ def leneen. liñ mu nekk ci nekk konti entraînement am yàlla hmm. la mbir bu discipline la ci muy def. Hmm. moo demee nii sport des da nekk des fois nekk rawatina ci mbir bu jugee ay blessures Abdoulaye yu métti. Hmm. donc bu su jugee ba yu fi nekk. parce que mu ci ligne bi. ñaanal xel dafa jàmm. a ko ci compétition lan nga ma mën a wax ci moom. Boy Faye champion la macha allah wax dëgg yàlla champion la mbër la xam nga di ko nuyu parce que tamit li ko moom bu la joxee cër da nga koy jaroo cër boobu rek mosul wax benn baat bu ñagas dem la ko si man te même bu waxoon baat bu ñagas dem la ko man tamit man sama devoir du ma du ma wax lu ñagas du ma wax lu ñaaw. Hmm. waaw di ko encouragé moo nekk woon te boo organisé tamit day métti trop. Hmm. gis nañ coono yi ñu xam ne entraîné na pare na xam daal macha allah daal sport moo demee daal. Hmm. da yokk entraînement bi xam ne mooy loolu dina baax incha allah. Hmm. Doudou Sané. Hmm. ngeen bëre ñaari yoon nga daan ko ñaari yoon ñetteel bi nga daw. <laughs> ñëwaatoo nee nga da ngaa yooyu yaay blessé boo xam ne taf yambal nga ndax bëri nga ci ba génn ci ñëw ba dernier combat bi bu doon ganjël la dinga nga ñëw bëre bëre woo lan nga koy wax. waaw Doudou Sané moom wax dëgg yàlla moom message bi laaj moom bëri trop. dëgg yàlla. mais dafa nekk lu jaadu. parce que ba nii damay saan euh, làmb ji ma gis muy jooy waaye dafa may choqué bu baax a baax. Hmm. li tax te sport moo ñu boole. Hmm. borom jom la c'est normal. Hmm. nit ki dara daan mënu ko daan neexu ci xol. mais làmb moo demee noonu. ñu ne sportif lañ. te suñu borom bu dogalee ne du saa day daan seen njaay ala kul al day am. naka jàpp foofu rek. kenn newul la yaafus nga kenn newul yambar nga. Hmm. kenn newul kenn newul kenn newul. Hmm. koo xam du saa xam ne champion la ndaanaan la macha allah mbër kaamil la. Hmm. ay mbokkam bëgg nañ ko ñi ma àndal bëgg nañ ko macha allah. mais koy wax la koy waxaat rek bu ko dara jarate muy wàcc làmb. bu ko dara jarate muy wàcc làmb. parce làmb at daf ko tànk làmb xel xamul lan la wax dëgg yàlla di ko nuyu nag bu baax di nuyu STF ñaar nag moom ñëpp di leen jégaluwaat nag. bu baax a baax a baax a baax. Hmm. di ko wax mu sant yàlla bu baax parce que 4 4 4 0 moo gën 5 0. Hmm. waaw sant yàlla bu baax daal. 4 hmm, 0 moo gën 5 0 ah mais bu fekkoon di nga ñeme ñeme ngaa bëriwaat ak moom cinq cinquième combat bi mënoon ngaa ñëw. waaw non loolu loolu loolu li koy bàyyi suñu ginnaaw waaye Serigne Ndiaye ñeme na bëri ñemewul bëri. yaakaar naa ni ñu koy wax rek. Hmm. waaw dañuy yëngal wala bokk si woteer si woteer bi si woteer bi ni ñoom xëy na. Hmm. yërëmuñ seen mbir ñoo koy hmm. waaw mais man sama jumbo wallaahi la jim du sara moom nekk moom dëgg yàlla moom. moom yërëm commencé waat nga say entraînement. waaw depuis démb. démb kañ. démb lundi. lundi. Ah. non loolu mënul nekk. kañ nga bëre chef de l'état. barke lundi daan dimanche. lundi nga ma damay bëri combat dimanche lundi ma xëy dem écurie Fass entraîné. Hmm. ah bi fooy xaar. Hmm? lutte traditionnelle bi. non instant yii blessure je dois me reposer faire mes trucs et puis ça va ah, ndam de day soppi di nekk <laughs> maa ngi lay bu baax. waaw waaw sa gars yi équipe bi sax ma la maa ngi lay jaajëfal bu baax di la di la jaajëfal ci seen disponibilité vraiment ñëw ci kër gi fekk leen fi yéen ñëpp surtout heure bi trois heures presque jot na di matin sa gars yi ngi gëmmantu ngeen nangu ñu ko ñu ngi leen di jaajëfal bu baax leen remercier bu baax hmm. waaye dafi na xam ne carrément que ñu woon tey hmm. ka foore ambiance hmm. xam nga am ko fekk ñëw sama kër jóge émission jaar sama kër xam ak lépp yow nga am euh, patience toog xaar. Hmm. yaay ñëw. loolu hmm. sa liggéey rafet na. Hmm. xam liggéey journaliste dafa xaw a wax ne léegi doo xàmmee journaliste yeeg. ak supporters yi. ndax ku jug yor sa caméra. wax lu la neex. Mm. affaire du noonu. Mm. ne ku ne am nga koo faral. Mm. waaye na nga jàpp sa xam ne lii liggéey la. liggéey boo xam ne affaire mbër dafa sensible. xam nga mbër a mentalam mbër ak xelam mbër ni muy doxee. donc boo liggéey ci affaire mbër da nga a xam nooy waxee. xam nooy doxalee parce que suba ak soo ko sax boo soxlaa mbër. di jégalu ñëpp nag. di remercier ñi ma jàppale bu baax a baax a baax a suma gars yi may àndal ñëpp. te su ma nee Baye Abdou. Mm-hmm. Zal. Mm-hmm. Bara Ousseynou. Mm-hmm. xam nga Sopé Galas Poi Diarra lu muy xuloo chaque jour. xam nga. Maam Samba. Obala. sama ma fi sama mère dëkk Assou Ndiaye maa ngi lay ñaanal baax yàlla dafa ko jàmm. Cheikh Ahmed Ba. xam nga Seydou Gueye. Sidi Samb. di nuyu nag suñu papa Yves waa Fass baax. di nuyu waa Gambie gi nekkoon. di nuyu waa Gambie gi ma nekkoon. Mm-hmm. wax dëgg yàlla di nuyuwaat Gambie gi ma nekkoon nga xamante ne nii suñu bàb yaa Aziz suñu bàb Cheikh Sumbulu mm-hmm. yàgg naa fa trop ñu may jàppale di nuyu suñu watkat boo xam ne nii moo ñuy wat sa mm-hmm. di waa golf yi nag suñu bàb Amadou Sall di ko nuyu bu baax di ko sant di ko jaajëfal di nuyu waat encore équipe bi di leen ñaanal jàmm ak salaam làmb moo boole ñëpp nag mooy yàlla bu ñu làmb tàqale parce que lii dafa neex macha allah puy di ko ñaanal tamit yàlla sutural ko mu am ñetti soxna yu baax. Hmm. ñu naan Babacar ñi ci amul jaww yàlla defal ñu am soxna. Hmm. jërëjëf si ñëpp di sant ñëpp. salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu. jërëjëf Serigne Ndiaye